man nag may wax ne dafa mel ni sëriñ bi dafa teeloon a bàyyi xel yàqu-yàqu jamono ni moom ak tarbiyaam bu ko téyelee boppam ñëm yar moo sol ko ci ñoom bañ mën a tarbiya yi adduna kenn dafi dul sax te kon danañ dem ba jëmmi jamono am na ñuy taxaw taxawaayu ni dañuy tarbiya te duñ mën a tarbiya boobaa dañuy yàq nit ñi moo taxoon mu fab mbootum tarbiyaam def ko ci biir bi kon loolu xam ko lu am solo la pour murid bi xam xasida li muy tekki ci ab murit dafa taxaw taxawaayu jëmmi sëriñ Tuubaa ci defar nit moo tax mu wax ni fekk dafa mel ni sax dafa jëkk ñaan ni wajaal ishaaraati ka cheikhi tarbiya wajaal ibaaraati ka cheikhi tarxiya ginnaaw bi mu wax ni kitaabati te dafa ñaan na nga def samay ishaara mu mel ni sëriñu tarbiya samay wax mu mel ni sëriñu tarxiya ginnaaw bi mu wax ni sama borom may na ma kitaabati qaimatun maqaama cheikhin sama mbind taxaw na taxawaayu sëriñ buy tarqiya buy maye maqaama ginnaaw bi mu ni kitaabati faaqat suyuuxat tarbiya wa kulla xayrin sama mbind kawe na sëriñu tarbiya kawe na wépp yow wasu yoo xa tarxiya kawe na loolu kon xam gi dafay am solo ci murit bi ngir mu xam xasida taxawaay bi mu am xam ne taxawaay yu jëmmi Sëriñ Tuubaa la taxawee ci defar te it mooy résultat doxub sëriñ bi ndax sëñ bi eh, bi muy doog a tàmbali dafa wax ni wër naa fu ne walam azal منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل غائبا musuma dañ di sàkku maarifa mooy ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya di wër ci diggante boroom xam-xam yi ak wàll yi bi niyati wa amali wa xawliya ànd ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax hatan saraftu ama jay sasin ila xidmati xayril alamina zil ala mun nag bi ma demee ba atum ay sasin ci laa wëlbatiku nag jëm ci xidma xidma bi nag mooy tagg yonent bi ak julli ci moom ñaa lii mooy xidma bi xasida kon bu ñu ko xoolee juróom benn xaaj la tagg la ak julli ci yonent bi ak dëkkër mooy tudd yàlla ak asukru te mooy sant yàlla ak adduaawu te mooy ñaan bi ci des mooy jihaad xasida am na ci xaaj boo xam ne jihaad la xasida yi tagg yi wala xasida yi salawaat yi jaalibatu maraaxib ci la tey siirul ansir ci la afaatihul bisiri noonu ak nooru daare yëpp ay xasida la yoo xam ne xasida yi salawaat la xasida yi tàgg yi jës bu mu waxee bi muqaddimaat ci la waaye yëpp dama ci lu ci ne dama ciy tudd ab lim rek waaye ak ya ci aju nag xasida yi xasida googu ma jëkk tudd muy jàll ba tubaraatib daf cee ñaan ni sama borom na nga def xasida gi képp ku koy jàng na dox sa digganteeg lépp lu ñu war a yedde ak yonente bi daan digle ni yéen xale yi ku ci mata denc soxna demal denc ku ci amul loolu dence nag dénk naa la ngay woor ndax koor googu dana dox sa diggante yu dul noona sëriñ bi ñaan ci xasida gi ni wajaal kitaabatiya fawqa mi wa xayrihi min maaniaati law mi sama mbind na ko def mu kawe koor ak lu dul koor ci liy tere nit def luñ ko yedde kon ba tey loolu loolu xasida googu lu mot a fonk la ngir bari na fu mu yóbbu nit ki bari na lu lu nit ki waroon def lu dul noonu mu dox diggante ak moom ba mel ni sëriñu tarbiya bu nekk ci kanam naka noonu xasida googu mu ñaan ci ni sunu borom képp ku wattu xasida gi mbaa mu fexe ba xasida gi am ak nu mu amee taxsil mooy nga bind ko wala nga móol ko di ko tasaare wala nga di ko jënd di ko tasaare noo fexe ba xasida gi di am ci àdduna bi rek maa ngi ñaan ki def loolu suñu borom may ko ay mébétam yépp yu mébét nag ko may ci barke bi yonte loolu sëñ bi ñaan na ko ci xasida googu ñu tudd Jaalibatul Maraaxib mu dellu ñaan ca nit ñi borom képp kuy jàng xasida gi yàlla na nga ko jéggal lépp luy ay bàkkaaram te nooyalal ko lépp lu jafe yombalal ko lépp lu jafe waxfir yaa xafuur li xaari iihi wa alin bihi nafuur nooru day ni mu boole ci diggante julli ak tagg ak sant lu ci ne boole na ko ci cant gi buñ ko waxee cant buñ ko waxee mooy li muy wax ni sama borom may na ma ko loolu yi di nuru ndamu sant lay teg ndax yàlla dafa wax yonente bi ci alxuraan ni ko amma bi ni'mati rabbika fa haddis del waxtaane xéewal yi la sunu borom defal kon waxtaanee ay xéewal yi ñu defal loolu ak cant lay tekki waaye tekkiwul ndam mu wax ci biir xasida googu nii suñu borom may na ma bépp bés sama bépp bés kawe julli guñ nangu ak koor guñ nangu it ni wala jaaxante bi ka kulla shahri fawqa ibadatil sama wenn weer wu def nga ko mu kawe jaamu yàlla yi mbindeef yëpp ci seen giru seen seen giru dund jës bu ak mooy ba mu xaddimaat ci xaside tagg yi lañ bokk am na sama benn baay bu ñuy wax sëñ Modou Gelo Ngal daan wax ni dafa wax ni dafa am kàddu gu wax ak moom mel ni xeetu ilham la mu ne kàddu gu mu yëg mu wax ak moom ni ko wilaay gu la nit mën a jaay daal yow saxal ci jës ba ak mooy um xadimat xasida muy wax midaadi ñu tënk ko ma yow tey rasul fa la dañoo wax ne sëriñ bi dina wax ni fu ñu ko jànge yonente bi dana fa ree mbaa mooñu fa te ku koy saxoo jàng yi bala ngaa dee da nga am ngërëmul yàlla te ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy ci na diwut loolu lépp it dafa mat a xam muy secret yooyu ci xasida yi pour nga xam ni nga koy jàppee ak ni nga koy fonk jihaad nag am na ci xasida yi ab xaaj la ci moom itam mu mel ne diiru lu muy nekk ci géej gi mbind yi mu daan bind jihaad la ndax dañoo wax ni euh, jamono bu ne dañ daan am ay jafe-jafe ñoom tubaab yi am ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu dañ daan am ay làbbe yoo xam ni lu leen jaaxal dañu leen koy laaj waaye ñoom buñ defee seen i gëstu dañ leen di wax ne jafe-jafe yi ci kii la jóge te li fee jëlewu leen ko fi du am jàmm loolu sëñ bi mel na leeral na ko ndax dafa wax ni dafa am xasida gum tënke xasida gum tàmbulee ci ni li ya'laman naadiru anna xatti ila ilahina ahabu xatti ni kuy xool ku ne na xam ne sama mbind bu gën a yàlla mbind mu mën a doon daal ne jaahatu bi zikrillahi min aami ak sasi mu ne jihaad naa ci mbind lu mat fukki at li tàmbale ci atum ay sasin ba ci atum kasasi wa qabila al jamia am ak sasi jamono yi accès si suñu borom nangu lépp lu ma doon def ci jihaad waaye dafa wax ci xasida googu ni law anna ni lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil itaaba la maata bil wabaai kullu kaafiri in yatuubu lil ilahi dafa wax ne su mi rek di jihaad ak yéefar yi kon yéefar yépp danañu dee ci mbas buñ tubut daal di laakin afawtu an jamihi naasi waaye nag damaa jégal nit ñëpp li wa ci baaxin moo liggéen xam naa si ñëpp jégal naa leen ngir jëm yàlla kon dafa mujj sax jihaad jooju mu doon def mu am lor juy jëm ci ñoom sax dafa mujj bàyyi ko jégal leen lépp yi daamata xam bu dee xasida yi ñaan yi lu mel ni sindiidi ak matlabul fawseeni li ci sëriñ bi ñaan nit ku bëggoon a ñaan it sa xel da ko dul daj sax ba nga mën koo ñaan kon ba tey mat naa fonk ngir loolu ak mat la bu sifaay ci wàllu wér-gi-yaram xasida yooyu yëpp nag day dugg ci maanaam euh, sikkar maanaam sikkar buñ ne ñaan wala julli ci yonente bi wala tagg wala sant yooyu yëpp day dugg ci baatub zikr euh, tudd yàlla moo tax lépp lu boroom xam-xam yi wax ci njariñi tudd yàlla rek wax na ko ci xasida yi ni mi ngi ci buñ ne day dàq seytaane wax na ne ida katabtu aw qaratu harwala iblisu fawran ma aman taxawala buñ ne sikar dafay dàq seytaane sëriñ bi wax na ci xasidaam ni saa moo bindee mbaam ma jàng rek iblis dafay daw ba sori sori ma buñ ne sikar su bari day maye ngërëmul yàlla sëriñ bi wax na ci xasida yi nii radiya anni llahu wal wa xamiyat kulliyati astar sama borom gërëm na ma bi gërëm na ma te sama lépp ay sutura aar na wax ni yaa ummu ni ridwaanu min kulli wijhat ngërëm wet gune rek ma nga fay bàyyi ko te ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy ci lu ab jullit war a sàkku suufi yu jëkk yi daan digal seeni taalibe ñuy bari lu ñuy dugg ay xalawaat di wéet di jaamu yàlla di sikkat di julli di woor waaye sëriñ bi moom xam le ni samay xasida mën naa eggale nit ki ci yàlla ci lu dul muy dugg xalwatu tuwasilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu agnaaka ma abqa delluwaat ni xatt ya yuusilu murida tarbiya li zil jalaali wa murida tarqiya sama mbind dana eggale murit bu toll ci tarbiya wu ci yàlla ak murit bu toll ci xaamam tarqiya waaye loolu lépp nag kon bu ñu xam ni ci kaw pas lay tegu pas mooy li nga xam ni ci la nit mën a sukkandiku ba dugal kum dugal dugal dugal nit ñëpp ci lim nekk da di nit ki lu mën a yëngutu bu fekkee amu ca pas-pas moo wëñ gu ñuy moo ku ku kuy mboros di ñaw te te fësul wëñ gi ñu yem saa bu roccee lépp rocc ko topp ko pas-pas mu fonde diin